ay taala wa barakaatu alhamdulilah tey ñoo nañ ziyaara ci cheikh Mamadou Hami Ibrahim Niass ah, mbokki taalibe yi nekk Thiat ak yi nekk sur région Thiat Abéché Ati Amatiman Saar Mundu région bi yëpp quoi yëpp ñoo ci sëriñ bi fii ziyaara oh, ñoo nañ ci gàmmu bi alhamdulilah léegi ñoo nañ ci kër bi ziyaara léegi kontaan nañ trop ci ziara bi sëriñ bi moom Cheikh Mamadou Tohami Ibrahima Niass depuis quarante ans day dem Tchad depuis ñu ñëpp presque bari ju dul nag def na bu rëy Tchad nag ak Soudan ak Centrafrique macha allah dafa liggéey nag liggéey liggéey bi am solo foofu chaque jour balaa day ñëw il faut ngay wax ci kaamil alquran. alhamdulilah sant yàlla lu baax léegi caat problème bi bari wàññi na parce que ñuy wax ci ci kaamil ay million ay millions alhamdulilah kontaan trop ci moom ñu gërëm ko ñu sant ko ñaanal ko yàlla yàlla yokk gudd fanam barki baayam barki baa ñees kontaan nañ trop wax dëgg yàlla kontaan nañ trop jërëjëf كل هوائي قد أسبه لا إله كلا يسير بهم فلك الهوائي قد أسبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيوف وليسوا بالنبي تشرفوا لا إله كلا كلمت بهم مجدا وإني أنسف لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله يكون بها لي إن أحمد موقع ألا يكون بها لي عند أحمد موقف لا إله إلا الله لا إله إلا الله بجود قد ذكرتك موهنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد نام كل الناس والقلب يرجف لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد نام كل الناس والقلب يرجف لا إله إلا الله لا إله إلا الله ترسي وهبري ومزبري لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنسي جمتي والدموع أكفكف لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنسي جمتي والدموع أكفكف لا إله إلا الله حقا بطيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أجاور خير الناس حقا بطيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله توالي القرى والبيد حتى كأنما لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأفعال بتيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله توالي الفلا إني لديه مواقف لا إله إلا الله لا إله إلا الله توالي القرى والبيد حتى كأنما لا إله إلا الله لا إله إلا الله توالي القرى والبيد asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu أنا اسمي موسى آدم من دولة تشاد جئت إلى مدينة باي سنغال لكي نحضر مولد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة سيدنا الشيخ إبراهيم إنياس وأولاده وأحفاده وجميع تلامذة الشيخ إبراهيم إنياس والحمد لله قد جئنا و كل كل يعني قد بدأنا من المطار والحمد لله ما وجدنا أي صعوبة في مطار ولقينا كلهم هنا أولاد الشيخ ولقينا قد سرنا بهم وسروا بنا الحمد لله نحمد الله على كل شيء والحمد لله والشيخ محمد التهامي إنياس هو يعني سنغالي لكن أصلي من دولة تشاد نعم naam kaana yazhabu lana kulla sana kulla sana alhamdulillahi yazhabu lana kulla sana wa cheikh uh, mouhamad al bachir siisi aydan alhamdulillahi hum tashadiyuna alhamdulillah barakallahu fiik alhamdulillahi qad hadarna al mawlid wal ana fi wal an nahnu fi daaru الشيخ محمد التهامي إنياس قد أزمنا بهدور قداء نحمد الله كل آم هذا كل آم يفعله هذا هذا الشيء نحمد الله ونشكره على كل ما فعله بنا جزاه الله عنا كل خير أطال الله عمره بجاه الشيخ إبراهيم نياس والحمد لله Bismillah rahman rahim Moi, je suis euh, maître Adou Moussa, je suis avocat. Euh, présentement, à Kaulak, à Medina Bay, euh, nous sommes venus pour assister euh, à la cérémonie de Gamou 2024. Au nom de la délégation tchadienne qui est présentement ici présente dans euh, le salon de Cheikh Touhami Ibn Cheikh Ibrahim Ignace. Euh, nous remercions d'abord le Cheikh pour euh, sa persévérance et son aide aux Tchadiens. Ça fait plus de 40 ans que Cheikh Touhami Ibn Cheikh Ignace est avec nous au Tchad et au Soudan. À chaque fois, si nous avons besoin de lui, il est toujours disponible jour et nuit pour recevoir tous les talibés affiliés à, au Faïda. Le Faïda, euh, c'est le Tariqa Tidjania. Donc nous remercions euh, Cheikh Touham Ibn Cheikh euh, Ibrahim Ignace pour tous les efforts déployés pour aider les jeunes talibés affiliés au Tidjania au Tchad. Euh, euh monsieur le Cheikh, recevez nos remerciements et nous pour que, pour que soit rétribué par centuple tout ce euh, le Cheikh fait comme effort pour les Tchadiens. Euh, nous, Tchadiens présents ici pour le GAMU 2024, Nous remercions également les autorités euh, sénégalaises qui nous ont facilité l'entrée sur le territoire sénégalais et sans visa. Que ce soit par air ou bien par terre ou bien par mer, si un Tchadien arrive au Sénégal, quand vous dites je suis venu pour le Gamou, on nous donne le visa 101 francs. Un visa, euh, ils donnent le visa sans paiement. Et ça, c'est un acte louable et nous remercions toutes les autorités euh, sénégalaises. Pour les autorités tchadiennes également, nous, nous les remercions parce que pour avoir facilité également les déplacements des, des, des, des Tchadiens euh, de Faïda au, au Sénégal. Euh, nous vous remercions tous. D'accord Et à, euh, à l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, nous serons encore ici au Sénégal. Nous remercions les autorités euh, sénégalaises et les, tous les enfants du Cheikh Ibrahim et Nias et leurs petits-fils. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Euh, je m'appelle Issa Najib Senussi. Euh, je suis euh, à ma première année en fait, voilà, au Gamou, euh, à Kaulak, euh, à Madinat euh, Baynias. Je remercie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir en fait, voilà, donné ce, ce, courage, cette envie, cette volonté en fait, de vouloir rendre visite à cette magnifique ville. qui nous a accueillis à bras ouverts à travers en fait, le Cheikh Euh, Mohamed Touhami Ibrahim Nias. À, travers en fait, voilà, euh, lui, on a pu en fait, voilà, rencontrer euh, tous les enfants en fait, du Cheikh l'Islam, Cheikh Ibrahim Nias. On est même entré euh, à Rauda, Alhamdulillah. On a fait euh, des, des, doigts pour euh, tous les peuples tchadiens. on remercie également en fait, voilà, Cheikh Bachir Sissé et euh, le grand imam euh, Cheikh Tidjani Sissé, euh, Cheikh al-Imam euh, Mohamed Mahi Sissé, pour tous les efforts, pour toutes les disponibilités. On a eu également en fait, la chance en fait, d'entrer dans la chambre intime euh, de Baïnias et euh, on a touché également tous les effets. Alhamdulillah, Bebarakati Seydina Mohamed, que Dieu en facilite également la venue l'année prochaine à travers le consulat euh, du Sénégal au Tchad, parce que moi j'ai eu mon visa là-bas et je suis venu à l'aéroport sans avoir de, de, soucis et tous mes autres euh, compatriotes tchadiens qui étaient venus à l'aéroport, euh, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, Alhamdulillah, on remercie également en fait, voilà, le consulat tchadien qui se trouve ici euh, au Sénégal euh, de continuer en fait voilà d'œuvrer dans ce sens en fait voilà de la tariqa et euh, de nous guider vers le droit chemin. Euh, une fois de plus cheikh barakallahu fikum fi kulli ma taqaddamtahu lana euh, atal aleyka al umr et comme on l'a si bien dit il continue toujours en fait voilà être l'ami le frère le père et euh, euh, l'intime en fait voilà de tous les Tchadiens euh, de tous ces pays qui étaient limitrophes bon, qui sont pardon voilà euh, le Soudan euh, la Centrafrique le Cameroun il est disponible et que Dieu lui donne longue vie merci beaucoup léegi kontaan nañ ci ci délégation sénégalais yi surtout ci frontière bi wax dëgg yàlla ñu frontière bi moom waxtu gàmmu moom frontière bi ubbi na amul benn jafe-jafe nag waaw bu waxee maa yaa ngi dem Madina Baye rek mën a bismillah léegi-léegi sax nii jënd ay ndox ñu jox ñu ci fale ci bis bi kontaan nañ ci délégation yi ak euh, ci délégation yi fii Madina Baye sax wax dëgg yàlla moom gërëm nan sant leen alhamdulilah. wax dëgg yàlla suñ gis nañ ko nag temps temps gàmm bu ñëwee rek moom sëriñ bi day invité Tchadien yëpp ak Soudan yëpp kontaan nañ ci ziara bi moom waa Tchad yëpp kontaan na nag léegi ñaan yàlla incha allah chaque at ñi ñoo rek allah rabbi alhamdulillah jërëjëf. Uh, my name is uh, uh, Adu Musa. I'm a lawyer from Chad. I'm here in, Medina Bay in Senegal. Medina Bay is a center of Senegal. So we are here for GAMU two, uh, uh, uh, every year, on behalf of the Chadian delegation here present in, in, in, in Medina Bay, we thank all the political authorities in Senegal that facilitate us for the entry of Senegal without any payment or visa. When you arrive by air or by land, when the police ask you uh, you are coming for what? When you tell that I'm coming for Gamu, they give us free visa of entry. For this, we thank a lot all the authorities, uh, Senegalese authority, for this effort. We thank our Sheikh uh, Al-Hajj, uh, Sheikh Tuami Ibn Sheikh Ibrahim Inyas for his effort in Chad. He has spent uh, like more than 40 years in Chad to help young people to understand what is the faida in Chad. Uh, eh, what is the benefit of the fighter in Chad? Uh, eh, we thank him a lot. We even pray God to give him a long age to serve our, our people in Chad and eh, also to help us as young people from FIDA. We thank also all the young, the, all the son of the Sheikh Ibrahim Inyas and the grandson of Sheikh Ibrahim Inyas here in Senegal. Thank you a lot for your effort, especially me they offer for me in the chamber in the hotel. I have a room in the hotel for free. I thank them a lot. Abillahi min shaitan rajim, bismillah rahman rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. أيها الأخوة الكرام أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم المولدين المقدمين سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته نهنيكم جميعا على حضور في هذه الأيام المبارك في هذا المولد المبارك مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد بلاد السنغال وفي مدينة الشيخ إبراهيم نيابة عن أهل تشاد حكومة وشعبا نيابة عن أهل السودان الذي كان يرود أن يأتوا هنا ولكن لا يستطيعون أن يأتوا هنا كثيرا بل إنما أنتم الذي وصلتم هنا وصلتم نيابة عنهم إذا هذا كل فضل من الله يؤتي من يشاء الله ليفضلكم بذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الله لكم جميعا ويبلغ مقاصد كلهم بجاه رسول صلى الله عليه وسلم بارك القرآن الكريم الحمد لله gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme euh, niñ ko waxoon sànq euh, dal santaat yàlla di wax alhamdulilah rabbil alamin di sant euh, suñu ay waajur di sant kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal moo xam euh, kër diine yi fi nekk yëpp muy Touba muy Ndiassane muy Layeen muy Tiwaawan muy Medina bàyyi gi nga xam ne fi lañ toog nii tey li tax ñu dajaloo fi nag mooy yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmed Tidiane ak jëmm Mawlana Cheikh Ibrahim bi nga xam ne bi comme euh, niñ ko daan defee bàyyi daan toujours daan na def su gàmm di waaj a jot ñaari weer la koy préparé avant gàmm gi ñëw. nga xam ne bësam yëpp daf koy bàyyi itteem yëpp daf koy bàyyi du jublu dara du ci gàmmu gi toppatoo mbaar mi alhamdulilah fi nga xam ne fi lay dalal gan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ne jiyee ko Gambie wala ñu jiyee ko Guinée wala ñu jiyee ko Mali wala ñu jiyee ko Burkina Faso wala ñu jiyee ko ba Niger wala ñu jiyee ko Tchad wala Cameroun wala Soudan partout dans l'Afrique donc euh, kóllëre googu moom la ñii taalibe yi ñëw tey ñëw féddale si kóllëre gi nga xam ne gi seen baay amoon na ko ak euh, Mawlana Cheikh Ibrahim euh, loolu nag euh, njaboot Cheikh Ibrahim yëpp ñoo ci taxaw di leen ci ndokkeel ñoom ñëpp maa leen ci ndokkeel ci turi suma tur ak ci turi mboolem njaboot Cheikh Ibrahim mu ko dalee ci xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim ak Cheikh Baba Lamine Niass ak Mouhamadul Makki Ibrahim yi nga xam ne moo gàmm gàmmu gi ak suñ mag yu jigéen ñi ak suñ rakk yi muy roq Seyda Roqiyata ak Seyda Nafis ak Seyda Ndeye Aida ak itam euh, Mouhamad al Khalifa Mouhamad al Mahdi Mouhamad Chafiou doom baay yëpp daal mag ak góor ak jigéen mag ak ndaw ñi nga xam ne itam ñoo yittewoo affaire yi gàmm bi bi mu commencé ba léegi muy Cheikh Abdourahman Abdourahim Abdoul Malik ak ñooñu ñëpp ak Mouhamadul Khourous ñoom ñoo ngi leen ci gërëm niyaabatan an kii bëggoon nañoo teew ñoom ñëpp alhamdulilah waaye nag euh, xat-xati gàmm gi moo tax. Ah, ñii nag suñu ay mbokk lañ mbokk nañ ci diine lislaam bi nga xam ne ñii yàlla ak yonente bi moo ñu ko boole muy ashhadu an la ilaha illallah wa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bépp jullit boo xam ne bi yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah sa mbokk jullit di ko wax yéen ñaar alhamdulilahi seen xol yi benn lañ ay magarak ngeen dëpp ci aadama ak awa kon man sant yàlla ñi nag ñooy délégation bi nga xam ne ñooy jógee koo caat ñëw fii tey ah, depuis gàmm gi ba léegi ñu ngi fi doon xaar nag aussi gàmmuwaat pour war a ñibbi Sénégal pour war ñibbi Tchad di gërëm population Sénégal ci niñ leen taxawoo teeru leen ko dëpp biñ duggee ci frontière ba léegi muy ci gouvernement bi muy ci policier yi muy ci gendarmerie yi muy ci ñu yore frontière bi yëpp daal taxaw nañ leen taxaw bu baax euh, di ñaan itam suñ euh, représentants yi nga xam ne ñoom ñoom ngànk réew mi di leen wax dañu gën a yokk seen loxo. ci taalibe yi ñëw faciliter leen lu bëri parce que am nay Soudan yu war a ñëw mais problème visa la ñu am comme Soudan fi mu nekk nii dafa am ay problème amuñ fenn fu ñu ko mën a jëlee fu duwul Tchad te Tchad euh, alhamdulilah am nañ fa consulat boo xam ne bii provisoire la mais nag dañ faa bëgg consulat boo xam ne bii wala ambassade boo xam ne bii pour toutes les Sénégalais yoo xam ne ñu ngi Tchad parce que Tchad am na ay Sénégalais yu bari yu fa nekk am na ñu fa yàgg am na ñu yàgg bi Soudan ba léegi mën nañu am ay papiers. te loolu yëpp li ko waral mooy euh, régime bi fi nekkoon ak malentendu bi nga xam ne bi amoon nañ ko ak gouvernement bi nekkoon euh, ci at bu njëkk ak gouvernement bi fi nekkoon waaye gis nañ ne gouvernement bi bi mu ñëwee alhamdulilah am na yu bëri yoo xam ne teggeeku na parce que Tchadien bu daan ñëw fi wala Sénégalais bu daan dem foofu da nga daan am visa soo ko mën a dem mais keroog ñun bi ñu jëlee visa fii ci weeru koor bi bay dem bañ demee ba aéroport bi dañ ñu léegi Sénégal amatul visa ak euh, ak loolu itam ñu leen ci gërëm ci taxawaayu gouvernement bees bi ak ci taxawaayu itam gouvernement bi nga xam ne bii mooy Mouhamed Kaka doom Idriss Déby ñu ngi ko ci sant moom itam di ko gërëm ni mu facilité Tchadiens ba ñu mën a génn ba ñëw ba Sénégal aussi loolu itam remerciement bu mu mag la di ci remercier itam suñ président Diomaye yàlla gën koo dëgëral may ko kàttan li mu bëgg pour àggale ko Sénégal yàlla na may ko ko ci barke alxuraan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa gàmmoon nañ ci jàmm ak salaam ñu ngi ñaanal suñ bokk yi fi nekk yëpp muy doomu bàyyi muy taalibe bàyyi muy sëti bàyyi Medina benn bopp lañ parce que ñii nekk Medina léegi seen bàyyi ñoom ñoo nekkoon ak Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu guddeeg bëccëg di ko xidmaal ñooñu nag ñoo jóg léegi comme ni bàyyi daan wax naan zurriyatun ba'du wa ba'dun ñoom ñooy ay sët fi nekk nii ñoom ñooy ay doom fi mu nekk nii ñoom ñoo nekk fii comme seen place yu bàyyi ku ci mel ni kii mu Cheikh Abdou Fafa moom tam bàyyam ci xaadima bàyyi la nekkoon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon bon duñ def dara lu sant yàlla di leen gërëm itam yéen waa NTV bi yàlla yokk seen barke comme ni ngeen ko waxee woon sànq ci kër ga yokk seen daxawaay lépp lu ngeen di yëngatu yàlla defal leen ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam وما ذلك على الله يسير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله جهارا وقبسي بالجواري منذفون لا إله إلا الله إلا الله فكم قلب الحديد لا لا هداية لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكم قلب الحديد لا لا هداية لا إله إلا الله إلا الله فكم قلب الهادي دلالا هداية لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذ القتل يمهين بالحق يقذف لا إله إلا الله لا إله إلا الله طريقة العبد تمسي أديمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله حرامه بقتل عبد تمسي أديمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله حرامه بقتل عبد تمسي أديمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذ البدل يماهين بالحق يقذف لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرام بقتل عبدي تمسي أديمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرام بقتل عبدي تمسي أديمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأرض تمسي أديمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذ البطل يماهين بالأك يخزف لا إله إلا الله لا إله إلا الله باب النبي محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله كفت على باب النبي محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله كفت على باب النبي محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وطني لم أل فمن ذاك آصف لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن فاتني ومن فاتني بعد من ذاك آسف لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر باب النبي محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن فات لمن ذلك آسف لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكفت على باب النبي محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقفت على باب النبي محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقفت على باب النبي محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليتني لم أل فمن ذاك آسف لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا ما سفى للمنح منا فإنني لا إله إلا الله لا إله إلا الله كقاصد كفور بلا لا وأشرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله خريفي تدار ذكر محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله خريف شتاء الدار ذكر محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله خريف شتاء الدار ذكر محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومدهور مربأ ومصيف لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومدهوك عندي مربأ ومصيف لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبصي في شهود نبينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونومي وبصي في شهود نبينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سواء فللأغيار لا أتشوف لا إله إلا الله لا إله إلا الله سواء فللأغيار لا أتشوف تشوفوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سواء فللأغيار لا أتشوفوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ilaha illallah la ilaha illallah jamilan kariman yujuz lil layla ya'tifu la ilaha illallah huwa la ilaha illallah jalilan kariman yujuz lil layla ya'tifu la ilaha illallah la ilaha illallah wa idu adwi lam yukhfini wa waduhu la ilaha illallah la ilaha illallah العلوي لم يخفني وواده لا إله إلا الله لا إله إلا الله سراب بقيان مدى الدار يخلف لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلوني وكدوبا جفوا وتقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكدوا بل جفوا وتقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا دير أني أقرأ الذكر أعرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله على غير ذنب غير أن محمدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بن غير أن محمدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأتباعه سهمي ولا أتأسف لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأتباعه سهمي ولا أتأسف لا إله إلا الله لا إله إلا الله رضيت ربي ولا حنيفة مسلكي لا إله إلا الله لا إله إلا الله رضيت بربي ولا حنيفة مسلكي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إمامي رسول الله لا أتخلف لا إله إلا الله لا إله إلا الله إمامي رسول الله لا أتخلف تكلفوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله دليلي رسول الله والبيت قبلتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله دليلي رسول الله والبيت قبلتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله دليلي رسول الله والبيت قبلتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله نصوم وبالبيت الحرام نطوف لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبقنا أسرنا قبل أقوى الخاتم إلى صراطك المستقيم وعلى عالي قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين